Cheikh Gueye xale mi ngi tudd Fatima Gueye papaam laa kii des mi ngi tudd Abdou Dieng maamam laa ah maanaam xale bi man bërkaat démb ñëw na ci man marché bi ñu ñëwee ñu toog waxtaan mun ma papa ñun màdd lañ bëgg mu yëkkati ñaar téeméer jox ko ñu ko ba leme ngeen jënd màdd téeméer bi ci des bu ngeen demee ngeen séddoo ko mu toog tuuti daal ni ma papa maa ngi dem man ko waaw baax na bi mu demee man ñoom bi ñu toogee ba trois heures ci guddi lañ ma woo ni ma xale bi ajuma ndeel alxames alxames alxames ci guddi lañ ma woo ni ma ni ma dafa daanu ci foos man ko xam ah, ñu laa ah, mën na la daanu ci foos ñu wax ba ma xëyee ma dem bi ma demee bi ma demee ma laaj ñu expliqué ma ni ma foos bi ci la daanu moo xale bi ma ne ko ah mu ni waaw après léegi ñu ni ñuy woo sappoor sappoor bi ñu ñëwee xool nañ foos bi foos bi moom war naa mat ñeenti mètre léegi ñoom bu ñu tegee seen seen bi échelle bi daa dem ba jeex léegi ñoom itam ñu bala ñu ko laal foog ñu woo police ñu woo police ñu constaté après préfet bi ñëw na fa ah après ñu ñoom ñu doog ñu doog ko yóbbu hôpital régional bi ñu demee hôpital régional euh, waa police ñëw nañ fa après ñu dem ci médecin bi médecin bi xool kii bi xool kayit yi daal ko binaan demal leen police après ngeen yóbbu kayit yi tribunal après ñu yóbbu tribunal kayit yi léegi nag ñun ñu ngi toog di déglu borom foos bi parce que am na loo xam ne jaboot waru koo def ci mbedd fa ab foo fa ab foosu 4 mètres déedéet foos bi maanaam boo génn kër gi la ñu wax léegi maanaam fosse bi war naa bi ko war naa mat 4 mètres mais moom au lieu que mu kii mu da koo bàyyi mu maas kii bi xam nga loolu bu dee fekkee xale xamul lu foofu ban na la. tëjiwut kenn tëjiwoo la xam naa xale bi li leen ko wax sax mooy daal yi lañ fekk ci buntu fosse bi. daal yi xam naa bi na maa ragal kenn ki daa daanu mu du ko dimbali après xam naa ñoom ñëpp asin ñu fekk ñu fekk mu fekk ko ci biir laata ñu leen jëng nag bi ñu leen bi leen di wër ba ñëw fekk daal yi ci buntu fosse bi. ñu doog ñu doog ñu daan ñu doog woo sappoor sappoor doog a ñëw mais xam na am na loo xam ne kenn du ko def ci koñ ndax ku jaboot dina jabal wala soo tabaxee foos nga yëkkati ko ba mu kii wala nga wala nga wala nga euh, dale ko mais xam nga am na loo xam ne réwatul. borom foos gis nañ ko. ah gis nañ ko. ah gisoo gu mu gisoo ah man eh, eh, waxaguñ gis nañ ko waa police daal waxaguñ gis nañ ko mbuur kaat. mbuur kaat lañ wax de ah. mbuur kaat la hmm. waaw. burkaan la yaayam nag après euh, démb yaayam ñëw na hôpital ñu xool ko gis mais daal métti na lool daal sëñ bi métti na lool ndax kenn moo ku jigéen am na fukki ak juróom-ñaar 17 ans ki xam naa bi war naa am ay 10 ans ñu ngi moom moom moom jànguloon ku jigéen ki jànguloon waaye góor ki mi ngi doon jàng jàpp xaw ma la classe bi mais mais moom mi ngi doon jàng daal waaye wax dëgg yàlla daal sëñ bi ku ni mitiwul moom dalaa dalul man ci guddi gi rek yàlla xam na ko lañ ma woo rek ni ma ni ma xale daa daan ci foos ba léegi man hôpital laa ko gisawaat te xam nga loolu ci bàyyam it loolu rafetul ndax li yoon def ba mu kii boog ñu woola boog ni la kaay tiim ko boog ñu di boo ko yóbbu nga di ko yóbbu hôpital waaye yàlla xam na ci aw ci lu may ñu daal ñu ma daan na ci foos laa cam bi mu ñëwee bi ma leen laaj ñu ni mi hôpital national hôpital daal laa ko laa ko tegawaat ba ba nin ko indee fii ba sang ko ba eh, julee ko ñu yóbbu ko robi ko waaw seen xam nga seen yaay ma doon sama ñaareel moom lañ nekkal foofu waaw ñoo tàggoon nag moom waaye man taxul teewul samay doom maa ngi leen toppatoo boobu ma leen boobu ma samay doom de yàlla xam na ko ndax li gën a jafe mooy eh, ba ma yoree xam naa tàggu ma teewul samay doom maa ngi leen jox dund ndax pour en cas ëllëgay tax ak bëgg dawul naa ci lii ba taay ndax pour di sàmm samay doom waaye xam nga la nga bëgg lépp daal la yàlla xam doy na waaye daal métti na loolu daal sëñ bi bu bëggee dégg daal moom métti na. ci àdduma ji lañ ko jot ay boru ay ay booru mi daal ñu ngi ko denc bi ñuy jullee àjjuma ba pare waaw. ñu ngi ko denc fii guy tax guy tax waaye daal moom doy na waar loolu daal moom. waaw boobaa léegi daal ñoom daal bi ñëwee dem daal waaw gars yi ñëw nañ daal jël kii bi même pas commissaire bi waa ñax wax na ma dem ne ma léegi woo ko moom pour nga jox pour mu jël sa numéro. boo jëlee sa numéro après moom dina la woo xam naa amee jot waaw après nag démb waa ji nee na ma chef de délégué bi nee na ma ay boo dix heures onze heures dinañ la woo pour nga mën a ñëw mais xam bu ma woo doo mën a bàyyi gan yi dem dama leen di expliquer ne comme yéen yoon a fi ne. ah taxaw leen bu paase nag ngeen man bu ngeen ma woowee dinaa ñëw waaw mais daal métti na daal sëñ bi métti na lool a métti na lool waaw.